Euh, ku bëgg zikkar waaw parce que daf koy jaral alalam di ko ci def pour ñuy zikkar taxawaay yu rafet foofu waaw daa dana gën a leer ci kattan yàlla ndax euh, zikkar ci la lépp nekk ama dawamu sikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru xat qultu zalika bila israar wala ubali bi sawil inkaari ne baril sikar bi ñu ko waxee nag ñu bari laa ilaha illa lañ jàpp waaye bari na téere bi dana ko leeral ci kàttanu yàlla waaye lépp rek di dellu ci tawxiid ak wéetal suñu borom ama dawamu mu ni daal saxe tudd yàlla Touba seen ca mm, fii mi sëñ Abdou Karim Falilou mooy baax foofu mu ci euh, zikarkat yi la bokk mm, dégg nga El Hadj Ibrahima yaa ngi ko dégg Mhm. gaa ñi dañuy làkku ci ruq yi waaw lakku lakku ci di def euh, yu am solo ta lele léeg gis kuy dekk ci mbir ba du am jot dang dang dang dang suba ngoon nekk di yéeg di wacc fek am nañu tok te sax ndaysan seen yitte duñ ca man bop man dara waye lañ japp suñ ko bawon ñe nek ca lee duutuñu tal lola waaw ñu fegal leen lu bari waaw si Aj Malik ni lawlaa kawnul quraan maa fi suduri naas la xalakati dunya ma fiha si Aj Malik ne bu dul woon alxuraan ji ñu téete di ko jàng àdduna yàqu yam fa alko moo tax ma dawamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yaksiru ne saxe sikar di tudd yàlla ak di ko wéetal akbaru moo gën a màgg moo ëpp moo gën a rëy ci lépp loo xam ni ki namm yàlla murid bi mi ngi koy bari la def sikkar a ko gën min kulli ma kaanal muridu yuksiru lépp looy baril di ko def di ko baril baril sikkar a ko gën xat qultu wax naa zalika jooju wax bilaa israari ca kaw laa ko wax duyu ma ko de wala ubaali faaliwu ma dawil inkaar yi ñuy weddi bi sawil inkaar yi kuy weddi ka ka werante lii ma ni baril sikkar turu turu yàlla ci saw làmmiñ moo gën lépp luy bawoo ci làmmiñ wax naa ko ca kaw faayu ma koy weddi ci loolu hmm. wa kullu man saa képp koo xam ne laaj na ma posé na ma question ci lii ma ko sax balay booba wa kullu man saa li ni képp koo xam laaj ma fi lil jawaab am naa sa tontu bu yàgg xabla waaye waaye wala tujaadilu ahlul kitaab yi foofu laa lay tontu waa wala tujaadilu ahlul kitaab xam nga luy waral loolu tontu laa nga foofa foo ca ànd ko buut booy jeexal bi si bay jeex ba muy wax euh, tudd yàlla gën a màgg lépp euh, wala zikrullahi akbaru akbar wala sikrullahi akbaru bu jeex nga dugg euh, wala tujaadiloo ne foofu mooy sa tont yow mi laaj mbaa kiy weddi wala kiy lii nga taka linkaar sa tont mooy wala tujaadiloo xabla wala tujaadiloo la jiitu wala tujaadiloo mooy wala sikrullahi akbaru loolu moo ko jur voilà la jiitu wala tujaadiloo mooy wala sikrullahi akbaru kon sama tontu ma nga ci alxuraan sunu borom ne lépp looy def tudd yàlla moo ci ëpp fal zikrullahi akbaru waxultu ma man taraka képp ku bàyyi zikrallahi tudd yàlla tudd sunu borom ku ko bàyyi li dikri xayri yi jëm ci tudd keneen ku dul borom bi di ko bàyyil foxumbuun kooku daal ab dof la waaye yëmul ci ndof laahi dof buy fola dof nag daa bari dof wala yaasu bilaa aljunoonu funuun waaw yaa ngi dégg ah, aljunoonu funuun dof ay xeet la am nañu ci coppati tuuti ñoo xam ni dañ cee am as bubb rek as morso am ñoo xam ni dañ cee sangu naan ci diw ci sol ci mbubb mu jot ak dal mbaxana yëpp rek xam ni moom dof rek lépp dof wala junoon funoon am ñooñ nag dañ ca coppati mos ci tuuti rek wala caw dàll mbaa mbaxana mbaa tubéy bàyyi mbubb ja xeet yooyu al junoon funoon am na ñoo xam dañ caa ces waaye kaamil mat sëkk wal muxtaar ñoo xam bu ñu nee sëm nga ne waa jaa ngi bu waxee da nga ne xëy ndekete yoo daal cëm yàlla ndekete daal matut daal dafa manqué. bu koy gisee nii daal boo ko séenee yaakaar ni rek mooy waaja waye bu waxé rek nga ni mom moy mu ngi non bu défé mu bàyyi xel la ño xamni tam itam téré bi dana ko wax ruba si khat tahaddudin qadim tala ci benen beyd la yoren wa siran min ilay khat ala bari na ku bari sagar yo xamni munta am 1000 francs waye fess del ki leer ci yàlla tànk bu mu séqi kënu takk aras tax nit dafay xam nit nit waaw bu ko defee al junun funun daa bari façon mu ñoo xam nag boo leen ne jàkk rek ah ni ñuy dégg kii day dàng ma bu ko xeeb waaye bu waxee rek bu àddoo rek ñu ne ah ndekete kat oh kii kat ndekete gaaye la daa ma mat sëkk mbaa daa fees del waaw bu defee lu ma ta bàyyi xel la al junun kon funun waaye daal ku bàyyi tudd yàlla di tudd keneen ku dul yàlla dof buy fo nga dof buy fo wala yaasu فكيف أن سانس دي فاتي صح أو غافل الوراء ولم بدا فن دي سجنه ذكر الذي قلقه وصورا كل كي كو بند با نوبي ملال كو مل ورافيت وي مكو ملال دو بادبا واه لول دوينا تيرانغ ني ملو سون بور ملال دو بادبا تيرال كو لخ دو كرمنا بني ادم الايه تيرانغ جوجو نكالاي امي با نوبي nga fatte kiko def di tuddu kenen ndax mu wax sànq mu wax ca bay ci buntu bele wessu ne lek lekk alali sunu borom bo nopi diko foye foyee koy def wa la takun akil llahi wa anta fi kulli zamanillahi wa waxul toog xogul nga moy ko yalla de toog bam res lolou moy yak dugub le seigne touba waxoon ne lek dugub ju res ba nopi tok diko foye ja ko yalla de waye nga focca toog jaamuwu ko yàlla ba mu rees loola mooy yàq dugub fu koy xaan saan na cam si wàcc fàttee aw yu xaafilul wara wala bindaa fan bindeef di sàggane zikra allazi xallaxahu wa sawara tudd ki ko bind ba noppi melal ko bind moom ku ne xam ne yàlla ko def bind moom wal xaalix waaw loolu moom ku ne xam na ko wee képp wee aw wee kenn mënu ko bind wee waxuma karaw benn karaw ken mun ko mom dañ koy baye yalla waaw yi delo euh, ci sunu borom bo demee ci tour day leer wala ca tour yoy da fay leer ci fa bari sax ci sar yoy waaw wànn wo nak mom bidayatul wilaya mooy tambali mooy fondement wilaya di yaa ngi dégg mooy tambali wilaya kala su ibrahim alaaji ibrahim fay ji ko jàpp ñoom dootuñu ko waaw sikkar nag mos dolli la parce que da nga ciy nga fasax ba yag mu defar la ko yeb la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allah akbar wala aw khala, la aw la khot wala asbala ay min sita yu yeb dana leer ci teewi ci moy bidaya wilaya mokoy fondement moy tambuli, bi xam nga lu tambuli kon noo lu tambuli lu muy agge kon bidaya fii mooy bunt bi mooy jaar boo mënoo ko déglu potoxlu ba jàll te jaaroo ci zikr ko defee ma ta bàyyi xel tarkuhu bàyyi ga nag moom zikrul ilaahi tudd yàlla ak fàttaliku yàlla mooy nihaayatul xawaaya mooy daytalu alku wala torox wala bew wala yàqu parce que xam nga baat du diise gi nii julli sax wa aqbil dalaat li dikra koy def pour fàttaliku suñu borom zikra dañ koy def pour fàttaliku suñu borom taxawalal julli fàttalikoo ma ko waaw defee caxalana laahu amin mi ngi ñaan yàlla na yàlla def waaye jumlay attirade ni yàlla boole ne levi na daamu bi fikratin alihina ñi sax ci di xaat ka sikkar jamono bu nekk ñu sax ci loolu taxaw ca di ku bax euh serigne Cheikh gey Cheikh gey mu jaara ñu ko bëggoon bu bax momit it di kenn ci ñun ñu ko bëggoon jaale serigne Aziz lat ñu jaara gey xawlu université bi waaw ci kanam tuti bokk yi ko bëgg doon mëna jokk ak ñun ci yalla euh ci 88 628 71 71 gis nga moom ngeen jakarlo ñu ci caméra bi waaw 88 628 71 71 pour ku bëgg a jokkoo ak ñun ñu ngi ci Masaalikul Jinaan incha allah ci kattanu yàlla. ñu ne ko siyaar euh, njaboot Cheikh Ahmad Diarra yëpp waaye xam na ni weer wi taxaw foofu tuuti soo ko bàyyee xel tuuti xam ni jëfe ndigal moo am solo jëfe ndigal jëfe ndigal rahima ladi wafa maa ngi waxtaan ak Ibrahima Faye biig manuk jamu yalla gi ibrahima jamu won yalla lu jafé la wala wala ma sama wa tallahu lil jabid wa an ya ibrahim khat sadaqtu ruya Naka zalika najzil mus japp dom ji nga gëna bëgg das pak bu mu gëna bëgg ba ñaw tël ko bëccëg tek ci buré gi dag yombul yombul ñu mel ni ñu gàddaayoon rek waaw ci ba jafe nga xamni ni dañoo ànd ak pour rawale ci pass pass parce que yaqibu an kullu kawni lil mukawin lépp lo fa fad won lulul dul ki leen amal dara nekkatul lu dul yàlla lolo tax ñu mën egg fof man ko gis sun borom parce que euh bo xol suñ tubaab mi ngi wax wa xayrullaahi lillaahi lu lulul yàlla yàlla ko mom wa xayrullaahi lillaahi lu lulul yàlla ala li yàlla wala fa ibrahim egon fa yombul examen la ray de réussir

mas na wax jibril ni ko maa ngi taxaw ci ne lisine daamu bi fikrati alayhi ina waaw ma dugg ci ibrahim tuuti tabaski parce que ko ne kañ nga sa a euh, yàgg kañ nga ñëw daan ñëw mu ne ko man yàgg naa fi de jibril ni ko man aadama ba léegi maa ngi ñëw aadama ba léegi maa ngi ñëw ci yent yàlla aadama mu ne ko ndax mas nga am benn problème ci say ñëw mashaqa coono wala difficulté mu ne ko ar dal na ma fi arbaati mawaadiqa ñeenti barab yi xaw tuut mbir xew lisaan mu ne ko ban ak ban ak ban booba nag wute nag bi ko ne iqra muy xëm booba ñu ngi lëngoo di ànd waaw parce moo ko yilif nag waaw moo ko yilif maa xalaqa rahman say un li nafsi si waa seydil mahmoud wa si daji malik mu ngoog bu defé muni ko kéro bañ la xadi oud sunu borom bayina ba der di départ ci sa leex bu dor ma ajena jël ci adina terre tu ko bu lalé suuf ma dégradé la te biróom da sori jibril nga kattanu asamaan nee ma bëgg salu ak ban muni ko bañu sandi ibrahim ibrahima départ na ci mbaq gi ba jëm ci sawara wi mu dor ko ni jitu ko ni sawara bu mu ko lak ta nga lay tayel ko ci adina yi نرخ يا نار bardan wa وسلاما ala Ibrahim. خليل ak ban bi mi rendi dom ji ak bani yun sani yusufa ci jëb ci jubbi bi mi rendi dom ni nee na ko bàyyi na dawal pak bi ci bat di ñewul bi mu koy daasaat lama doona telephone sama bureau ne ma gaaw legi bu ko rendé nak bu digalé ko yow dinaa def renouvelement léegi wàcce na mais mu jël xarma xaabil jaamoo yàlla dikk téye loxo Ibrahima rocc Ismaayil dugal ko te rendiwu ko mu ne ko ñeenti barab yooyu xaw tut mbir xew waaye mu jibril dafa gaaw ma ngi koy wax sama waa ji dem naa ko si xubatin bésil arzima kinin mata in sama aminin la moom dafa gaaw waaw dafa gaaw wax na ko bala nga koo xam nga dellu fële ca nañ mi waaw zomir ratin la waaw pare boole ko taar nag noonu la jibril mel ko defee kin examen rey mu réussir bukk te kiñ examen yar mu échec échec yar yaral sa doom rey lu wuñ de yaral ki ñu reyloo moom ray na waaw tër na bay rey moom siggee sax defe neen rey mu nangu yaay ja nangu ñu am ay ngërëm muy ñeenti ngërëm moom ak jibril ak xar mi ak ibrahim waaw bu defee dafa naa rey moo gën a jafe yar ci doom ni mel ku ne da ngay xalaat diglu bu baax seetal nattal ci sa bopp doom ji nga gën bëgg tey ñu jox la paaka ni la rendi ko lii bëccëg tàkkusaan ngay jàkkaarloog moom ah dégg nga waaw gis nga nattoo di kerkeraan ngoog ba ca mujj ga ko weddi laajal xayrul anbiyaa gis nga moom it nattoom ni mel waaye gis nga nattu yonent yàlla ibrahim ni mu rëy waaw waaye mu matale lépp rek ibrahima lazi wafa lépp mu matale ko tax alquran wala hadith istafaynaa fi dunya wa innahu fil axirati lamin salih nga non bu ko defee eh, sun borom moko tan def ko mbeur ci mbërëm yi mu matale ko nak muy abul anbiya di maamu yonent yep ci suñu waaju bax ji sayyidina muhammad ali alayhi salatu wasalaam muy mamam wa ak ci ca la ga fam jaar ismaïla ak sara sarata gis nga la ca xew donte émission bi du carton benen yon 88 628 euh 71 euh, 71 defee eh, ñu ko bàyyi xel wal xul fi xil israar yi wuutee maa ngi dellu ci zikkar mu doon cof rek paas jaar noonu comme noonu ñuy def léeg-léeg ci di ko gis ci journaux yi léeg-léeg mun la dém xooli ko ca paas sàngam waaye man yabal naa la foofa gis nga tabaski boobu demee ci surtout yàqtiin am na gën a leer waaye fi ne faaw barkeeloos ci waaw ya ca xew a gi si aju nag eh, asati si ñu ngi ciy waxtaan bu baax ci kàttanu yàlla waaw defee xar ma nu mu war a toll waaw yooyu ba ci bu amul ba ci sësëg war yàlla na yàlla jàpp dal ñëpp waaw waaw te ñi koy jàpp joxe nit ñi itam suñu borom mayaat leen kattan buñ koy gën mane waaw ñuy def lu baax di di di coobarewu al mutatawiin di def di jàppale julit yi waaw wal xulxu fi l wal ijhaari bayn al masaayixi al kiraami jaari ne wuute ci sec sikkar wal ijaari ak biral ko baynal masaayix kiraam yi wala jaari lu daw la mu ngi daw baynal masaayix kiraam yi ci diggante sëriñ su tedd si dégg nga ndeysaan ni mu leen di wax parce ni mu leen di naatale kiraam nga naat jël wa faddaloo gënal nanu sera yalu ga lu tax li boo bi min rayaat am na ñu ni yalu sikkar wéet di sikkar ndànk moo gën di ko wax ca kaw parce que da ngay daw ngistal nga ngistal lu mu dugg moom loolu daal di yàqu wa jam o fikri bi yi innu yaa xalaat ko xalaat waaye lenn itam wa ba wa baaduhum lenn ci ñoom ci borom xam-xam yële faddala an bi bihi gënal na ni nañ ko biral moo gën am na ñu ne nañ ko yàllu ndax nga sori gis tal am na ñoo xam nee nañu buñ ko biral li yasma al ghayra wa yaqtadi bihi wa yaqtadi wa yaqtadiya bihi ndax keneen dégg ko roy la nekk ca rek dana gën a leer sax ba kenn dégg la roy la ca nga am ca tuyaaba ca roy ga fa yaxsalu ajraani ngoog mu am ñaari pay ay suma xtada saabu roya xayru keneen bihi ci moom lama bi jawr yi badaa bu fekkee biral ga feeñal nga ko ba keneen dégg la roy la ca kii daal moom day sikkar rek laa ilaha illa allah alhamdulilah allahu akbar dikk ni allahu akbar allahu akbar wala alhamdulilah wala laa ilaha illa wala subhanallah baat bu neex yàlla nag subhaana subhaana lazi bi yadihi malakut subhaana lazi isra subhaana gis nga da ko neex ñoo am solo la subhaana bari ay njëriñ yi yu ci nekk mu ngoog subhanallah ko mën a baril subhaana dafa bari ay yëf waaw nee ñu sax mooy tàccu góor tàccu góor booy tàcc mooy subhanallah di tàccu góor nga am ñaari pay bu fekkee da nga koo biral keneen dégg ko rey la ca waaw bu ko defee mu am si ñaari pay wa yaxusu kullu min al awaasi déglul nag foofu xistan lahu min dikri rabbi naas booy tudd turu yàlla borom bindaa fan yi waaw suñu jël kullu képp kullu bi amali fag la am mi na ci juróom ci yëguwaay yi kenn ku ne am ca ab cër ci tudd gi tudd borom bindaa fan yi luy loolu gis nga sikkar bi soo koy def ñaq wi cër yi yëpp yëpp da koy yëg di ngay mujj sax di ñàq lépp dañ koy fay tax biral gi nee na ah, lenn ci boroom xam-xam yi nee na biral gi gën biral gi euh, soo ko biralee ñenn dégg ko roy la ca waaye cër yi la yàlla jox yëguwaay yëpp it benn bu ne bokk ci loxo yaag bët yaag nopp lamiñ waag yëpp ñaq waag lépp dañ koy fay bu defee wal baadu ñenn itam ci borom xam-xam yële masayix kiram yi li taw siiti fii maala maalaa jàng nañ jëm ci fan li taw siiti fii ci diggu doomul ko waaw naa ñu ngi dem ci xayrul umur aw sàttuha ñoom it am nañ seen dalil ñu ngi jëm ca foofa mu fassilan baynahuma ñu koy aji teqale seen diggante muy muy biral ba ak yalu ga fa xaalaa ñu ni lan lañ wax na in kaana ne nekk na xaay fan di aji ragal mi na riyaa ci njistal baaxul ci dara nag su nga si taane booy jëf lu baax dala matu ko dana leer ci kanam téere bi soo demee tuuti peu bàyyi mun la gaawantoog pour mu yàq soo gantoo bañ ba noppi mun la yéem ko soo bañee mun la nawal ko gistal pour rek lenn li doo ci def mu yàq sa jëf waaw ko defee in nem nekk na xaayifan di aj ragal mina riyaa ci gistal fa xaqahu yey ga ah israaru mu mu mu yalu ko bil ixfaay ci nëbb fàqu yey na bil ixfaa ci nëbbu al israaru yalu ko ndànk su fekkente ni dangaa ragal ni yow soo ko defee njistal feeñ kenn ñële ca ñoom ci masaaxixil kiraam yi nee na na ko yalu njistal moom lu mu dugg yàqu waaw lu mu dugg ko defee euh, lu am solo la loo def daal la yàlla tax jëf ko te yàlla tax waaw nee nañ sax at taqwa di firi ragal yàlla mooy jaamu yàlla na ko def mu sell ñeel sunu borom bu dara jéewee ci gistal rek day daal di yàqu bu dara feeñee ci gistal mu yàqu ñu nuyu Madiana seen euh, euh, ca Cotonou ñun ñu ngi seen préparation yi tabarakallahu taalibi Abdou Aziz Abou Madiana hmm, sama waaje di borom itihaadu sirrul masoon ngi koy siyaar ñoom bu baax a baax Mhm. istawlu fihli anil butyaan yakunu bil ixfaayi wal kityaan wal kitmaan ama isa naa ani riya li xuwati tamkini wa sifa fa aquhu jahru bi la li nay li faydati l iqtidaay su fekkente ne am nga kattan dëgëru yow sori nga ngis tal mënulutu la dara yu ñàkk fayda yu ndaw ndawaan yi nga xam ni day daaneel ku pas-pas bu wala yooyu yow dépensé nga foofu ne bu boobaa kon bu kitmaan amati lu gën a wër lu gën a gën a baax ci yow mooy ginnaaw jéggi nga bii frontière biral ko keneen roy la ca am ca tuyaaba nga am ca tuyaaba la cay fay xàqoo bu boobaa kay al jahru biral ga bilaa xafaay ci lu nëbb moo gën li nay li faidatin li nay li faidatin ixtiraa yi ngir nga am ci njariñul ku roy وخم من يشفع عشاء صفعة آه، عسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع صفعة سيئة يكون له كفل منها وكان له على كل شيء مقدر كوسوس لو باخ باي في ني آه، لا تي فاي واو آه، كو داف لنين اه ني لا تي دال ا ديف موم بوروم ديف واختيار شيخنا المختار suñu sëriñ ba muxtaar si di muxtaar kunti la dam ci siyaar sët bu baax ba xalifa kunti ali ridwaanul ilaahil baari ngërëm la yàlla yàlla sax ci moom ne lii la tànn moom boo demee ci téeréem boo demee ci téeréem li mu tànn mooy nga biral subhaanallah wala alhamdulillah wala laa ilaha illallah wala allahu akbar zikru ca kaw tudd turu yàlla bàkk ko moom loolu la tànn waxoon na limees na limeef na min aadaabi dikri kon am nay teggin fan sur aqi fi junnatil murid li seyxil xalifat li seyxina al xalifati rasid seetal junnatul murid li seyxina al xalifa rasid mooy seex sidin muxtar al kunti yu gindee jë ku baax ka a waaw doo limeef na min adabi dikri bokk na ci teggi si kar tudd yàlla julusu abdi fi makaanin taahiri jaam bi ci barab bu sell bu ko makaani taahir julusu bi ci barab bu sell bokk na ci teggi ni waaw mustaqbil al xiblati saa tarabooye jublu ferenklaayu aw mutawarrikan kaman sala faxi wala boog nga toog ci sa pooj mel ni ku julli bay taaya wattul loolu xam ni teg ah, teggin da cee baax jàpp ne yaa ngi jàkkaarloog sunu borom waaw ah, xam naa eh, dama ci ay bali si ni saa yi dina tax bu sëlmalee nga fas ku loolu ak ah, xiyaama wasu waxu oda bo paré mën nga tudd waaye mo xam nga taxaw maa nga tok lu nga tëdd wala junub yi mu jëm bu tuddee ay ba bu nga tëdd sonu yooyu yëpp euh bu nga dem bay sikkar nak tudd gi yalla set xeeñ lu neex toog ferenk lay jublu penku wala nga tok mel ni ku julli ba taaya te sëlmalagoo bu sam solo fam ay teggine tey baraati mu ngoog dikk na ngay ku teey ku neex kat xam nga ne laa tayibul laa yaqbalu ila tayib yàlla moom euh, ku teey la ku set la euh, lu teey lu set lu baax la bëgg loolu la euh, sunu borom wax illaa taxloo leer na majaalis zikri isma tajloo anil malaikatil bistimaa wa muminil jinni al ijtimaay ngir doo yëg mukk ci barab set sell teewal sa xol di zikkër di bàkk yàlla zama tañ lu ndar dafa feeñ da génn da fekkee kan lil malayka di istimaa malayka yi dañuy ànd ak yow ñëw di ko déglu si turu yàlla parce que booy julli ci yeneen tibet ñu ngi ko ànd ak yow waaye wa moominul jinni ak jullit yi jinne yi way gëm yi ci jinne yi itam du def ijtimaa yi dañuy booloo ñëw toog di déglu kii sikkar am yàggal mu jëm waaw de li meef naa ixlaas ah, sellu caam sa bi taskiye bi tasfiyati askar yi min kulli saw bin fadri ci sellal sikkaram fu mu toll xam ko waynte kon mu tadee am fanaf yu awla ma tasimi yaa xëy bu fekkee day door a tam li tàmbalee ci laa ilaha illallah indi na rek maa taasiim mais bu boobaa awlaa boobaa gënee mu jiital ko ci laa ilaha illallah bu door a tàmbali bi ka mu gën yàqo bi ka bi laa ilaha illallah wal muntahi muxtasirun bi allah ki nga xam ne dem na ba àgg sës dem ba xuus ci yàlla dugg foo xam ni euh, mos na si lëf lañ ko am na lu mu jaar jaar te moom bu boobaa mën na yem ci allah waaw muxtasar bi allah allah allah allah allah yaa allah yaa allah yaaw ni daa allah waaye bu fekkee da ngay a tàmbali daa indi laaw na fi laa déet ilaa xabuur illa allaahu lu dul yàlla jaamoos ko di wàññi di di jariñ ñàkk gaa jaamu di lor illa allaahu lu dul yàlla foofu ngay tàmbalee laa ilaha illallah tout court laa ilaha illallah laa ilaha illallah fi daaw la sax xam nga 7777 yi di ñeent seet fi daaw la jot sa bopp ca sawar la waaw wala 124000 yi bu ko defee euh, boo demee ba xuus ba mel ni waaw classe Alaaji Ibrahim Faye ñooñu waaw sëñ Cheikh Guèye ca Guèye way classe Ibrahim ñooñu mu yam ci Allah yàllaahu Allah jalaal wa asraaruhu laysa yaliqu huna li kawnihi li kawni sirrihi bahran amiq wuññi ay sirram ay mbóotam nee na nee na ñu wuññi ay mbóotam déglu loolu waaye wuññi ay mbóotam du mën a nekk fii ci biir téere lu tax ngir nekk gëm nekk di géej gu xóot boo xam ne kenn xamul fu mu yam muy mbóoti lan mbóoti laa lan mbóoti allahu akbar sikkar ay mbóotam mu ne si ko wuññi fii asraaru ak fa an tuktaba fi saay feli kay di kulisi tasarufin nee na ay ay secret nëbbu na mu si ko bind ci ay kii ak i feggoo ki téere ñoom képp ko yëlbati koy gis bal li fi nekk daal ndax moom tunaal def nañ ambil muqaabala ci jàkkaarloo ci gulbatiku wabil musafati ak tuñu lal mu jaadale dedd werante des ci am loo xam ni des si jàkkaarloog yow wax la ko ci tuñ bi musafaha ay secret yooyu léeg-léeg nga gis koo xam ni maga ko déy dem ba yàgg rek wala suñ borom yónni dara rek ñu coppatil ko waaw yàlla lam yor daa bari te du jeex benn min laa indana rasainuhu mun la coppati rek jox la nga falu fal goo xam ne juut fole ko bu boobaa nag ku bëgg jàmm na la ko yéene boobaa ku bëgg jàmmam na la ko yéene yam ulaahu ma yasaa wuy sabbit li doo umul kitab soo defee la jéey waaw wala mu coppatil la mun yutil ikma faqad uti xayran kasira kasira ni yàlla demee ba yàgg rek ñu naan fu jaar ak diw bërki dem mi lor nañu bare bare yàq na leen yàqal na len xana diw bërki dem ñu bare ba ci yonent bi nga xam ne moom it Abdoulaye fi newoon doomi amina te ki way bu ñu nangam dal ñi biti saaliha wa asabu laykata wa samud gis nga ko ay salih way mi don bay fi tool jardin salih way de nga salih bërki dem wa mom la sëñ Tuubaa tuddee Cheikh salih bu baax ni gis nga momen ndaysan bi Jibril di ñëw daf ko fekk ci jardin muy bay xamna tour tur bi yu na borom salih mom moom suuf nangul nako lol lool ba lay ko defé démb barki démb mii yonent bi dañ ko ni nit nga rek ni waaw waaye yoo xaa ilayya maa déeyu lu ñu leen déeyul lii na ma ana basarun mislukum wala waaye yoo xaa waaw nit la nit ñun waaye dañ ko dee gis nga wax na aw xeer xeer bi nga for fii ci mbedd bi boo génnee wala xeeru géej bi mu posé 2 kilos wala 1 kilo ndax moo xeeru jamaa ñooyam bu ñu yamee poids ndax ñooyam wala xeeru or wu toll noonu waaw boo ko faroon ak xeeru ciment wii wu xonq yi xeer wala xeeru doju dënn doju dënn faral doju dënn ci géej gi for fa doju jamaa ba xam na nekk ñaari benn bu ne kilo rek nga xool moo tax yoxaa ilayya xul innamaa ana basarun mislukum waaye yoxaa ilayya dañ ma déey nit laa ni yéen di doomi ñaari nit di bindaa fa ni yéen ñu bokk buur di nelaw di fàtte di xiif di mar di sonn di noppalu waaye dañ ma déey jibril la fii déy lu mu leen la fii son borom ni ko demal neel kee moom laa na mooy saa am jox ko lii te joxuñu leen ko loolu rek la lii na maanaam basarul misukum wala kii yooyu de waaw waaw dañ ko déy defee boo jàngee surtout yasin daal di xelu ci loolu tax nit ki bu nekkee ci zikr ba yàlla déy ko baabee rek ko la la nga yéene nit ku baax parce que wax naa ko démb euh, gis bu fekkee yéene kese la yéene lu baax bu dee da ñaan rek ñaanal far lu baax bu la na nattoo ba nga xam ne dangay ngay yéene dong la yéene moom yéene yéene kese yéene lu baax yaa ngi am soxla yu baax mënoo ko toppatoo ay yu baax yu lijjanti te fajoogut kay. day saan Tuubaa seen ñu ciy waxtaan waaw bu sëñ Abdou Karim Makarimul Axlaaq kon yéene lu baax rek yéene maa li kulli imrin maa nawa kenn ku ne la nga yéene rek nga am kon na nga yéene lu baax yónni yàlla say noonu yàkkamti ko yónni yàlla say noonu yàkkamti ko waaw bu ko defee du nit ki lu mu bëgg ci nit ki rek la yàlla yi def déedéet waaye diwum bër ki dem mi moom ak doomi diw mi ak fii la nekkoon def nanga wala moo déet daa yër rek yàlla daa yër kun xamoo lu mu ko dee ci diggante bi mën ngeen a bokk ndey ak baay sax bokk benn néeg di fanaan ñu nommé ko wàllu yu biig nommé la wayu loo ci man faalu li ma borom ton la bu yàgg ina laa yafalu maa yasaa fële ci kaw mën a bokk ndey ak baay waaw muy wàllu yu ngay wayu waaw ñu jox ko luñ la joxut may ko luñ la mayut mosaan dégg naa sëñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma mu baax mi day joxe guro ñu faa ngi fàttali waaye séddale leen ko séddale bi yàlla séddale leen ko séddale bi yàlla mu toog ba yàgg gaa yëpp jaaxle ñëw rek wax ni waaye guro gi nag ñu ah, dañoo jaaxle sëñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma borom na peg joxe ni nañ ko séddale séddale bi yàlla mu ne ah loolu di tibb lu bari jox benn waay tibbal lu bari dolli bu ñaari kilo jox kenn jox kii kilo kii liibar kii mu jox xob doom kii ŋàdd ngaddu guro ngaddu moom defe naa ne ngoog tabaarkalla dara yamul dara yamul ba ci saaba yi sax ba ci yonent yi wa tilka rusulu faddal na baax du mala baat walaaya dafay gis nga am na ñu ci waxal am nañu ci bokk ci ulul asmi sara lakum min diin ma wasa bii non waaw bu ko defee waaw am ñu ci waxal demee ni yonent yàlla Moussa am lu mu yëkkati makanan aliya Idrissa ci sa barami yi dara tolluwul mu genn ni ndax li ngeen ko ben way ni ko am ah, ndey jox na ki lu bari jox ki lu yam jox kilo lu diggu dóom jox ki tuti jox ki ngad ni ngi ni ci def wa non la yalla defee ba tax bu fekke da nga japp sikru lay to wala zikru lay akbaru boko ko ba yàlla déey la ñun ñun lay mbóotam nga ne mugg nag xanaa muy feeñ rek ba nit ñi duñ ko mën a tey ñàkk xam yenn yi fellax rek ku ne demale ko fekkale diw mi lim yor ak fu mu la yor ay xëyoom ak am xaabidoo krafio daa bënn leeg yor alam na yooyu yëpp lu ne ñu koy wax ñoon day jaabaax ak moom ngërëm la fu ne rek waaye yow fekk rek am na lu xew waaye am na it loo def nag ndax ku bëgg dara def dara nu ko yàlla ne woon ba mu gis ne yonent yàlla Isaa yaayam dañ ko ne aussi ilayka bi gis naxal naxal tu saaxat wala tasaaxat alayka rutuban janiya pour ñu jànguwaat gisuma la ëkku tàndarma gi jébbal gi léegi ak ñoral gi léegi meññet ko meññal ko léegi ak ñoral ko léegi mu am rutban janiya loolu ci suñu loxo lañ mais gësëmal rek defal effort àdduna ko bëgg dara def dara bu dee fële ci àjjana la meññet mi moom xutu fu daniya moom daf ko ko tàggat te dañu ñëw autour bi mutashabiha pomme bi nga lekk beneen pomme bi ñu la jox nga ne bii la ñu asawaaru sirna xam bii ma joxoon léegi boo ko ñamee dootul bokk ñaari pomme yooyu du bokk ak bii bi ak bële bokkul ngoog bu ko defee ñu bàyyi nit diwum bërki démb mi diwum bërki démb waa ah, dana waar ko defee ginnaaw yàlla mooy denc fu ko soob waaw mën na faa denc loo xamul waaw te ñaari sax fu mu foogul lay denc su feesee del nag ba dara da ca toq am na lu ko fuuf mu ni mu gàtt moom mën na ko yor doo ca xam dara bàyyi ko xel bu baax a baax a baax dafay boo liggéey bu ne murit ñu maa dencoon fii loo ciy man mën naa am sax moo lay jàlle naam aw nit dana rammu askanam kenn dana rammu askanam yenn jëmm dana rammu askan wam génn yàlla dana ko rus ci askan wa dana am askanu kër ndey ji ak baay bi ba ci afsul quran ndax sabina alfin yusfeenu min ahli wala yuasabu wala yusalu ahlu riwaayati jamian qaalu 70000 te Sëñ Tuubaa am na fu wax ne juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki junni la yonent bi wax dañ ko may mu romb 70000 ci kër baayam xaram soixante-dix mille ci kër ndeyam ñu ñëwaat ko yeneen soixante-dix mille ci xarit ya ak xarit bi ak jege ñaale ya kon kenn dana ramu aw askan yàlla mooy denc fu ko soob leen def daal koo gis teral ko li gën a gaaw mu gën a wóor te yéene ko la mu yor ak jàmm ko defee léeg boo teralee ku yàlla teral jóge fi yow tedd waaw boo bëggee tedd dul ko yàlla teral muy tedd yow ngay tedd di muy tedd ngay tedd di te bul xam foo jëm nag moo tax ñaan fonkul muur yàlla maye woykat ba wax na dëgg de yàlla moom mooy joxe waaw yàlla mooy joxe waaw muy wahaab waaw bu la joxee nag et dama lekk fekk lay daw muy daw di dawal te am nattu la ñàkk nattu la wax naa ne lu ci ne teral na ca waay duma ca waay jox na nit ba noppi teral ko ci àdduna ak àlaaxira boobu nag moo baax waaye xaj na nit it teral ko fii ah fële xañ na nit it day ak moom parce que bee bokk bu ñëwee mu teral la bi bokk ko delloo mu teral la waaw amal insaani sa mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu fa yaqul rabbi akramini waaye isa mabtalaahu fa qadara alayhi rizq fa yaqul rabbi ahanani kala nuyu baax Abdoul Aziz Basiru ku bëgg xam-xam Abdoul Aziz Basiru ko nuyu au passage ko ziar baax bu ko defee am nattu la ñàkk nattu la bi ibtilaa la bi imtihaan dii poos na to borom ba mu fees del woyefal na poos ba mu woyef toy mu nattoo ko borom bi ibtilaan bi imtihaanan waaw ah. nag bëlee ma gënal waaye daal li am solo mooy bu mbir dikkee rek delloo ko yàlla xam ni daal kii dogal mbir yi mooy borom waaye maa ngi woon fi dugg ci zikru waaye dafa mel ni Kabiru ak Alassane ci réalisation bi nee na ma waxtu wi jeex na xam naa mel ni daal jékki-jékki rek jeex waaye daal euh, laa ilaaha illallaah zikru daal ci lañ nekk waaye ci la lépp nekk ci tënk ñu nuyu madame Fall bu baax di ko yàlla baaxal. fanal wirid kaso si te dammana sayutulu fi dunia talaaxan bayina ma taxaw foofu kon ku bëgg am dëgg dëgg dëgg secret la ilaha illallah da ngay fase àdduna fase mu leer ma ndax loolu taxul mu orienté ci taalibe ba Cheikh Rafal bàyyil àdduna moom fase mu leer soo bëggee am dëgg dëgg sir àdduna la ilaha illallah nee na yow talaxi dunia lan talaaxan bayina ko jafe bàyyi àdduna di nuyu Kabiru ci technique bi euh, caméra bi réalisation bi suñu mbokk Alassane di nuyu képp ku ci jàppoon di ziar bu baax a baax. Euh, fi ma tàmbalee woon euh, képp koo xam ne taxawoon nga jàppoon nga ci liggéey bi nga xam ne El Hadj Maam Thierno Birahim Mbacke mu seriñ Cheikh Awa Balla moo ci joxe ndigal ñu ànd ko ak euh, Serigne Mamadou Lamine Mbacke mu Serigne Maam Thierno Birahim fii ci Sicap euh, bu Serigne Cheikh Awa Balla mu doon di defar ay xéewal di ko yóbbul Serigne Sidi Muxtaar ñu àndoon ci nag ak daayira ndakaar yëpp reson du Cap-Vert fédération des daayira yëpp. Eh, eh, ki nga xam ne sëñ Mbaye Niang di jëwriñ fële ci géejawaay itam taxaw ci taxawaay bu rafet nu àndoon ko ak eh, bokki taali bi yëpp di nuyu sëñ Njaga Njaay ci cees waaye di nuyu itam képp koo xam ni yëngu woon nga ci muy góor muy jigéen ak ku mën a doon ñu ngi ciy fas yéene taxaw incha allah ci kàttanu yàlla ba su dikkatee rek gën a neex gën a bari gën a yaatu gën a Euh, sakkan ñu di ko taxawu ànd koog Moodu Lamine incha allahu bi sëñ bi demee rek lañ tàmbaliwaat waajal déwoon ci kàttanu yàlla loolu la Seex Béthio loolu la waxoon ne na màggalu doo ko waajal weer mbaa ñaari weer mais bu xëyee sëñ bi ñaanee ngay tàmbali màggal di tàmbaleeti moo tax muy dàq gis nga ni muy dàqal sëñ Tuubaa ne yàlla fay ko Seex Béthio ci kàttanu yàlla nuyu itam jëwrinam yépp rek Seex Béthio waaw mu ko defee mu ngi noonu ñàq du réer si mbokk taalibe sa Sero Balla Seck ak seen émission pencum l'islam ci LCS ba beneen talaata ci kàttanu yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Allah